tax ñu dëpp ñëw dakaar moo tax ñu wax ñu ne dañuy wax ak askan wi bañ xam euh, kooku di Modou Diagne Fada li mu def parce que bi ñu jëmee Touba toll ak mbeddum këram moom nag dëkkul ci kaw tali bi da ngay jaar ci benn koñ dox lu xaw a romb ay kër foofu la dëkk moom dëkkul ci kaw tali mais mbedd mi këram nekk dafa gaare ñetti oto ànd ak ay nerwi ak ay fetal fetal bal rayal dinañ ci ñëw parce que moom dafa juum ci ni mu doon defee coup bi parce que ñun mënuñoo dëkk daaru moxti di ay doomi daaru mu bëgg ñoo faagaagal sëfoor bi dawal dëkk daaru ñu dëkk daaru xam nañ gone yi ñaar ñetti oto yépp safoor ya ca nekkoon xam nañ leen bu baax nii ñu xamantee parce ñun ñoo bokk dëkk Touba ak daaru benn la ña nga xam ne itam taxawoon nañ fay nekki nér wi am na ci ñu jëlee dakaar fexe nañ ba xam nañu tudd ñoom waaye am na ci ñoo xam ne daaroo la leen jëlee ñoom it xam nañ leen ba xamante nañ ca dëkk ba kon loolu dafay yomba lijjanti bi ci des mooy ñun karawaan lañ yoroon li doon def live boo boolee seen yutub yi ak tiktokeur yi ëpp na fukki seen kon donc foofu amul lenn lu mën a romb fetal yiñ yoroon ak jaas yeeg oto bi ni mu foncé ci kaw mbooloo meeg lépp mi ngi ak ñun ay preuve yu nekkul lu ñuy fen sos nekkul lu ñuy wax léegi bi nga xamee ne nit ñaa ngi romb man sama oto laa jàpp ne man la doon bëgg rey parce que bi oto journaliste yi romb na oto bi def sono bi romb yeneen oto yu ndaw yi romb bi samay oto yu tollook mbedd mi la benn oto daw cent à ñëw taxaw ci digg tali bi ba nga xam ne man amatuma fu ma jaar fi may freiné oto bi man dawaluma sama safoor fi muy laale oto bi rek beneen oto bi foncé rek bëgg a yéeg ci sama bëgg mbëkk sama oto sama safoor gis ko gaaw mbas yokk vitesse sam génn bi ñu xamee ne rëcc naa leen ci lañ soqi ay bali fetal may dégg ñëpp a ngi koy dégg nit ñaa ngi nii danañ ko wax ndax ña yoroon fetal gi sax ñun xam nañ leen ñu soqi ay bali fetal jël ay xeer di sànni ba toj sama vitre oto euh, coordonnateur u Pastef Daaru Muxti muy euh, nan Mbaye sax naa Bey ak euh, Thierno Mbaye professeur Thierno mbay dañu fekk otoom dañ ko dàq ba jàpp ko moom itam toj otoom ba mokk rumbux toj vitre yi def ko lu nekk gaañ ko dina ñëw ci blessé yi ñu am ak yooyu yëpp mais dama leen di wax rek ni mu demee bi loolu amee ku ne xam na ne ñun pick lañ yoroon xale yu jigéen yii ñu ci bari ci pick bi lañ yéegoon ak xale yu góor ñu nekkoon ci pick bi dañ leen a dàq ji mbooloo mi dafa bari oto bi du mën a daw ñi dàq leen daanaka xaw leen a jot di dóori xeer ci kaw ñi nekkoon ci kaw pick bi ba li toj ay bopp ñenn ñi dañoo tiit ca péelu damm am nañ ñu ci am ay damm-damm yu bari ñenn ñi dañoo daanu ca lu wuñ mais dañoo daanu biñ daanoo am na ci ko am jafe-jafe yi ndigg ba ma nga ca hôpital ba ñu bàyyi ñi am damm-damm yi seeni rajo mi ngi nii loolu lépp dinañ ci ñëw pour wax leen rek jëf ji ni mu toll bi nga xamee ne am nañ ñu cëppeelu ba fii may wax ak yow nii am na ñaari xale yu jigéen yoo xam ne ci karawaan bi lañ bokkoon gisatuñ leen te am mënatuñ leen a woo ba jot leen taxaw nañ daaru muxti entre 4 heures du matin ba 7 heures 8 heures lañ gën daalu parce que dañ doon bañ belee blessé yi tamit di am jafe-jafe ci lañ mujj ne nañ obligé ñëw suñu noppee ñoom làmmiñu daaru ak ak ñeneen ñi ci des ñoom lamit ñoom lamit lamit defe naa ak euh, Njaay Tuuba ñi ngi foofu ñoom pour rechercher ba xam lan lan la ñuy am ci ci ci ci ci ci ci seen information ñoom léegi lii lépp nag bu amee tañ nekk ay doomu Sénégal tooñuñu kenn doon def suñu warugar muy campagne électorale jot ñu sol suñu dàll jël suñuy moyen bàyyi suñuy yitte di liggéeyal senegal di dem ci ay dëkk yu wuute saagawuñ kenn dóoruñu kenn xeexuñu kenn parce que dem nañ ci lu ëpp ay ay gox yu wuute fréquenté nañ ay daje nañoo ay politiciens yu dul jeex parce que Thierno Alassane Sall rek mën naa wax démb ñoo yendoonoo luga bi ñuy génn ngumba ñu ngi daje coalition Anta Babacar Ngom amuñu kenn problème kenn suñ demee ba daaru muxti nag jaañ fadaa gis ne moom dafa am jafe-jafe ci élection yi mooy ñaari jafe-jafe mooy dina perte élection yi benn deuxièmement jël na alalu benn Bokk Yaakaar nax ko amado Ba jël xaalisam ba noppi mënta campagne parce que fu mu génn ñu yuuxoo ko mu ne na wut euh, beneen façon muy jaar ci violence loolu nag dinañ ko ko may duñ ko ko may su ma waxee duñ ko ko may nag mooy ñun duñ xeex di def suñuy propagande ak suñuy liggéey ba am suñu ndam téyeku nii ci suñu loxo 2024 bii la 24 mars région de Kébémer dama département Kébémer di ngeen fa dégg résultat yoo xam ne yéen ñëpp ay tëj seen nopp parce que dañ ko liggéey ba mokk rumbux kon duma yi nga xam ne moom lañ war a duma jaañ Fada moom lañ ko war a duma dañ koy xaar ci bureau de vote bi mais dafa am leneen loo xam ne duñ ko nangu mooy buñ bu ma nee dinañ ko nangu mooy dinañ ko ko muñal ba de ba 24 mars bii dimanche soreetul dinañ ko wan ne ko daaru muxti ma moomu ko ña fa nekk tamit duñ ay jaamam jëndu leen am nañ droit choisir ku leen neex te ñooy wateel Ousmane Sonko tànn bulletin Bassirou Diomaye Faye te ñoo tey noonu lañ koy defee mais li wax ne du ko nangu mooy histoire retiendra Modou jaañ faada dafa góorewul du nit ku gore parce que moom dafa nekk xale bu ndaw nekk UJTL PDS di liggéey daaru muxti di ko sagoo fu mu leen woo ñu wuyu ko bi muy ànd ak Ablaye Wade ba ni Ablaye wàdd daanoo amul benn élection bu am te lay wàdd gañewul Daaru Muxti te Modou Diagne Fadaay tax mu gañe ko 2007 bi ko Ablaye wàdd investir da neexu ko dafa gedd Ablaye Wade def coalition waar wi ñëpp topp ko entre Daaru Muxti ak Touba ba mu am defe woon naa ne 4 député xaw ma amoon ci satisfaction bu mag bi mu noppee na day àndaat ak Ablaye Wade ma mu geddoon waa Daaru Muxti toppaat ko bu àndaat ak Ablaye Wade jaañ Fada dégg na maire jaañ Fada dégg na député ay yoon dégg ministre bu ne dégg DG te loolu lépp dégg ko ci gratuite grâce à votu waa Daaru Muxti kon su demee ba waa Daaru Muxti taxaw jublootuñu ko defe naa ne amoon na beneen façon bu mu mën a jaar bu bokk ak di wut ay fetal di leen fetal wala muy wut ay jaasi di ko caw seeni doom parce que man maa wax samay blessé mais hôpitalu Daaru Muxti tey ku mu demoon ma nga fees dell parce que la fa nekk ci ay blessé yuñ cor jaas yi ñii daanu ci tali bi ñii seeni ba kanam toj ñii ay xeer dal leen kenn mënu ko wàññi te lépp ay jëf la yoo xam ne moo ko jëf te moom bakkan la doon wut parce que mbooloo mu tol noonu dama leen seetaan vidéo mi ngi sama page Facebook mbooloo mu tol noonu ku mën a jël ñetti oto foncé ko ci seen kaw ci ay xale ki jigéen kooku da bëggoon a rey yàllaa ko dimbali rek yàllaa ñu dimbali loolu amul te nag 2007 bi mu nee dafa am ak problème Ablaye Wade dem samp waar wi Ablaye Wade jël ku ñuy wax ceer na lool teg ko fa mu wutu ko Daaru Muxti Jaañ Fada xawoon a tiit ne nit ñi duñ bàyyi Ablaye Wade di ko topp coow lu mel nii la andi woon Daaru Muxti xeex guddi xeex bëccëg ba ku ñuy wax euh, Moodu Jóob frère la ci la moom mën numbe Diop mi ñuy wax làmmiñu daaru frère am ci loxol Modou Diagne Fada la des ci xeexi politique yooyu ci la ko Modou Diagne Fada rey ci anam gu mel nii 2007 ñu bàyyi ko mu jàll parce que dañ ne woon ci biiru mbokk la su demaatee ba tey mu demaat ba tey mu gis defetam continué waat di recruter ay nervi wut ay fetalam fas yéenee jëlati bakkanu doom doomi waa Daaru Muxti yi ñun dañ naan ko arrête Diagne Fada dootu fetal kenn daaru moxti te dootu fa foncé ci kaw nit te dootu fa politique ba fay fol ba fay tas ab ful parce que ñaari ñaari gàcca dinañ ko ñaari yoon dinañ ko xeex ak mooy élection yi dinañ ko ko gañe te ñun ñii toog ak victime ya nekk daaru muxti kenn ku ci nekk dinañ defar plainte collectif avant ñuy def conférence de presse bi dem nañ ci suñu avocat maître Abdourahmane jàlloo wax nañu yoon wi ñuy jaar danañ defar plainte boo xam ne Cheikh Tidiane Ndour procureur Louga la ñuy dem jébbal ko ko ñaari plainte lay nekk parce que dafa def enlèvement suñu mbokk mii daf ko enlevé jël na ooram dóor nañ ko nangu ay weeram gaañ ko depuis trois heures du ba léegi kii mënul munul nekk nit parce que dañ ko xoxatal teg ko ay fetal te nag nekkul lu ñuy làmbatu Modou Diagne faada ci boppam moo ñëw taxaw di wax ak kii kii ne ko xam naa la yow mu ne ko léegi looy wut sama koñ ak nangam nangam te beneen preuve bi am mooy bi coow li amee mu dégg fetal yi tàkk moom tiit na tiit na mu téléphoné sëñ Abdou Mbacke mu bàyyi Cheikh yi men téléphoné ko ne ko ñoom dañoo ñëw sama kër di ma provoqué te waxul dëgg ñun mënuñoo yor ay live di ñu laayfal ñu mën a wax loo xam ne nit ñi gisuñu ko dem leen ci live bii gi rek ngeen seetaan ko fi mu jeexe ñëpp danañ gis ni mu demee ñoo ñu fekk ci kaw tali bi ñuy dem jotewuñu moom dara mu song ñu mu téléphoné Cheikh Abdou ne ko léegi ñoom ñoo ma song moo tax booy yi tiire fetal kon donc def na aveu deuxième aveu bi ci des mooy bi mu demee ba xamul accident bi nu mu demee est-ce que am nañu dee est-ce que amul ñu dee mënul nelaw mën naa wax ne 4 heures du matin ba 5 di ma matin ba 6 heures bi ñuy génn daaru mu ngi topp coordonnateur daaru Pastef daaru Muxti di ko téléphoné di expliqué li mu bëgg man xam naa ko waaye duma ko ko may mooy affaire sëñ Touba def lu la neex pare naan moo ñoo bokk sëñ beeg nañ ko waxtaan ak du ma waxtaan déw ma ci sëñ Muntaxa parce que xam naa ci loolu la jëm déw ma ci sëñ Bas Anta Ñang déw ma ci benn kilifa diine dégg liñ bëgg mooy dem ci yoon au niveau de procureur déposer suñu plainte toppante ko ak moom parce que moom da nit rek bu fekkee doolee Amadou Ba wala doolee Macky Sall la yaakaar jeex na parce que man ak ñiima ma àndaloon ak yéen sénégalais yii di seetaan xam ngeen ne élection yii di ñëw premier tour lay am man maa leen ko wax lu leer laa leen wax amul werante sénégalais yi ci seen bopp dañoo jël décision saasa seenum réew jaañ faada xam na ko waaye day dof doflu su fekkente ne nag doole yi Modou Diagne doole yi Amadou Ba wala doole yi Macky sàll moo tax mu jàpp ne la woon 2007 mooy rey nit dara fekku la ci moo fi nekk ba tey xamut li xew d'ici semaine prochaine dinañ ko déposer plainte te li ciy neex d'ici semaine prochaine moom dootu nekk dara ci senegal dina yomba lijjanti lool yomba jàpp lool te dinañ ko def ci kaaf gi li ma ko mën a baaxee nag mooy buñ ko jàppee moom man mën naa ko may añ ndax sama mbokk la dinaa wax ma madame mu koy ci bal bool waaye jaañ Fada moom dana dem prison ba parce que ay nit ku foncé ci seen kaw tiire leen ay bali fetal toj seeni oto saccagé ko ñëpp xëy dem hôpital nga nekk ci dëkk bi di dox loolu ku ko def ñun buñ la bàyyee ñun ay criminel lañ parce que bu subaa beneen politicien dina mer def ko loolu moom il faut mu leer mu jaañ fada dinañ ko topp ci yoon lu ñu yoon may dinañ ko jël amul bàyyi amul arrière jërul na ngay dem ci benn sëriñ di ma kalaame yaa ngi woote pour ñu négocier ko négocier wuñ xamadi ak yaradi ko gi nga nekkee ci dëkk bi danañ ko lijjanti parce que politique affaire gentleman la du affaire bon xol du affaire naan say vayen rek ñëw di fontoo nit ñi dégg nga su fekkente ne dangay ngay ngay gañe muy neex soo demee ba pert da ngay nangu ne pert nga yow ak Amadou Randal Ba dara du ngeen ko am ci élection yi man maa la ko wax waaw waaw Amadou Randal Ba ak ak Modou Diagne Fada Modou Diagne Fada bu fekkente ne dafa jàpp ne daaru muxti bàyyee ma ko sanc wala moom moo jur ña fa nekk ay jabaram lañ wala ay jëkk mooy suñ baay nañu ko wax bu fekkee ñun waa daaru amuñu droit ñun xool politiciens yi ne kii moo ñu neex moom la ñuy àndal suñ ko defee jaañ fada dañuy duma ñun ba ñu wateel ko su fekkee loolu la moom man xamatuma ci dara te moom loolu la ñu jàppee parce que nag jaañ fada problème bi mu am daf ko xamul moom dafa séq ak mbir mi ay gor te xamul daaru muxti ay goro fa dëkk lim am mooy daaru muxti ba mu mu daan ànd ak Ablaye Wade as ngone tuuti la woon ñeent fukki atam matul woon ñi di ko dimbali di ko jàppale politicien bu ne nuyu nañu faale wuñu mu dem ba mu yàgg mu dëkk ci randal xaalisu réew mi te loolu dinaa ci ñëw beneen yoon parce que Sonacos gii moo geen mam fa wuutu seen tojaange yi fa def yépp dinaa ko génne dinaa ko wax te jaañ faada loo yaakaar ne xaw ma ko xam naa ko sa néeg sa ruqum néeg sa ron lal sax la fa fay denc bu ma ko bëggee xam danaa ko xam gis nga randal ak tappale ak càcc gu metti gi nga nekkee sonaakos dinaa ko génne bëccëgu ndara kam yow ak gain sax laay boole parce que du ma yem ci yow jëkkëri ndey Sali Diop joo jooju la fa njëkkoon a nekk nga jiitu ko fa yéen ñaar ñépp yem ay tappalekat ngeen sàcc rek ngeen nekke Sonacos guddeeg bëccëg di tappale xaalisu nit ñi la ngeen fay jël bu ngeen ko fa bàyyi woon Sonacos réglé woon na bu yàgg mais bu demee ba Sonacos gerteeg daaw nga ko fay fekkaat xam nga ne liggéeyoo tappale ngay def loo am nag loo sàcc di ko jëndee kër fii xam nga luy sa problème ak waa Daaru yow yaa ngi dëkk Cité góor gi man ñëw naa fa ñëwati fa fekk seetuma la woon nag sa frère laay seet waaye Diagne Fada maa ngi leen di wax yéen waa Daaru Muxti kenn nit ku dëkk daaru ku ne mas na maa dem kër Jaañ Faada fii ci Ndakaaru amut bu ñëwee Ndakaaru dëkkatu daaru ab complexe la bëggut a gis ku dëkk daaru bëggut a wax ak ku dëkk daaru su demee ba élection jot pour moom waa daaru ay xar lañ yoo xam ne su ko neexee daal toog ba mu neex mu for xaalisam ñëw jënd maire yeeg pay après ñu wateel ko mu jëlaata ak otoom ñëw bañ na ko ba élection yii mu commencé daaru di naqari ci moom sax léegi tuxu na këram nga vidd la bërki démb la la la jaañ fada ñëw daaru moxti bërki démb te xeexa ko fa andi bi mu ñëwee tàmbalee karawaan boo yi ko du ci dal maire bu mu jox 5000 ñu ne ko jëlal bu ñun kenn du ñu jënd mu xam ne lii mënta sotti léegi rayante la bëgg a def reyante boobu nag man maa la wax dinañ ko saafara ñun doomi Daaru Muxti yi parce que pelante bi collectif la te nag bu dee justiciable nga maanaam da nekk koo xam ne yow yoon mënu laa topp Ablaye Wade ak Macky Sall de mënal nañ la loolu waaye seen nguur jeex na seen nguur daanu na te nguur gi di fi ñëw xàmmeewul ay tappalekat dinañ la pelante te Bassirou Diomaye fay mooy nekk sa président du ma faral de waaye du la faral yow du ci aar kenn nañu bàyyee ak yoon li ñu yoon may ñu jël ko loolu moom na la leer nañ di la waxaat encore une fois waatal naa la ko ci téere ci suba damaa fekk ma xaw a tàng waaye man duma ma wat ci sëñ tubaa ay caaxaan billaahi wa rabbul kaabati lii ma wax nii la demee jaañ faada daf ñu attaqué fetal ñu toj oto yi lépp kenn mënu ko fabriqué mi ngi nii ay vidéo la àndal est-ce que nag ñun dinañ bàyyi benn nit politicien boo xam ne dafa jàpp ne moom politique victoire daal la ci war a am bopp yëkk Yékini danaan daan ba mu yàgg léegi nekkatu roi des arènes daanu na dégg nga ku mënta indiwaat Yékini ci làmb ji nag muy daan mënoo tax jaañ Fada da gañewaat dara Kébémer fuuti na dégg nga léegi nag doomi Kébémer doomi doomi doomi kii seen bopp yi dafa tijjeeku doomi Daaru Muxti yi xam nañ li xew